s'agit d'une procédure euh, que le pays est obligé, bien entendu, de suivre dans le cadre de la transparence, mais aussi dans le cadre de la bonne information aux populations et surtout pour une meilleure maîtrise de l'information par le système de santé. le vendredi 28 février 2020, la cellule d'alerte du ministère de la Santé et de l'Action sociale a été contactée par euh, une structure médicale privée de la place au sujet d'un patient de nationalité française reçu en consultation et présentant une fièvre de 39 degrés, un mal des maux de tête. Sur la base de ce tableau clinique, répondant à la définition de cas, une équipe s'est immédiatement rendue sur les lieux pour pousser les investigations et effectuer les prélèvements. Il s'agit, je l'ai dit tantôt, d'un patient de nationalité française, marié et père de deux enfants, qui vit au Sénégal avec sa famille depuis plus de deux ans. Il en France, précisément à Nîmes et à la station de ski de la région dauvergne dans la période du 19 au 25 février 2020. il est arrivé au Sénégal le 26 février 2020 après ses vacances. Le patient est actuellement mis en quarantaine au centre de traitement du service des maladies de l'hôpital Fan. Les résultats des tests effectués par l'Institut Pasteur de Dakar se sont avérés positifs.

de son épouse. L'Organisation mondiale de la santé a été informée conformément au règlement sanitaire international. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle l'ensemble de la population à la sérénité et au respect strict des mesures de prévention recommandées. Je sais que nous pouvons parfaitement faire confiance à notre système de santé pour la maîtrise de toute la situation. Avant de donner les éléments d'information à Wolof, j'aimerais dire, pour les besoins de l'efficacité de la transparence dans l'information, les journalistes qui souhaiteraient avoir une ak accréditation permanente au niveau de notre service de com pour recevoir l'information au jour le jour et la traiter sont la bienvenue au niveau d'une salle de presse que nous allons installer au ministère de la Santé et de l'Action sociale. ñu ngi leen di gërëm bu baax taskatu xabaar yi si seen taxawaay ak si li ngeen ñu wuyu si si tey élément d'information bu am solo biñ leen namm jox ajjuma ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février 2020 cellule d'alerte ministère la santé et l'action sociale jot na benn information bu jógee ci benn structure médicale privée ne am na benn patient bu fa ñëw de nationalité française mais bi ñu ko seetee am na température wu 39 degré gorge bi di metti mooy pët bi mais aussi bopp bi aussi di metti loolu joxe njort ne mën na nekk feebar bi xamante ne mooy coronavirus parce que loolu mooy signe yi xamante ne moom lañ joxe ci tableau clinique bi ñu gisee loolu suñu équipe yi dañoo dem immédiatement def prélèvement bi ñu defee prélèvement ñu yóbbu ko effectivement fu ñuy wax service des maladies infectieuses pour mën ko fa téye le temps que résultat yi gën patient boobu nationalité française la mais mi ngi nekk Sénégal depuis ñaari at ak ñaari doomam ak soxna dafa demoon dëkk France précisément fu ñuy wax Nîmes ci benn station de ski bu nekk dans la région bu ñuy wax Auvergne-Rhône-Alpes nekk na fa ci période du 13 ba le février dellu ci Sénégal le 26 février Institut Pasteur bi ñu xoolee résultat yi xamante ne analyse bi joxe na ko wax nañ ñu ne résultat yi dafa positif mooy que ne jàngoro bi mu ngi ci yaramam bu ko defee nag taxawaay bi yokku ñuy wax ne ñi ngi leen di wax ne bu kenn paniquer parce que système de santé Sénégal man ngeen ko woolu ci stratégie bi xamante ne teg na ko en place pour circonscrire maladie bi déjà li ñuy wax cas contact mooy par exemple ñaari doomam soxnam ba aar ñi xamante ne ñëpp yaakaar nañ ne war nañ leen mën a vérifier déclenché nañ ko ma leen di wax ne tam organisation mondiale de la santé yëgal nañ ko information bi parce que loolu mooy procédure règlement sanitaire international ma leen di wax di leen yëgal ne situation yu mel nii li gën a nekk farata ci xeex bi mooy joxe information bu baax pour que donc euh, dara ba na mën a am ci rumeur boo xam ne yàq xew ñi te loolu nag yaakaar naa ne suñu premier partenaire bi war a def liggéey boobu suñu côté mooy ñi xamante ne ñoom ñooy tas xabaar yi mooy journaliste yi moo tax ma leen di demander organes yi xamante ne bëgg nañ accrédité ay journalistes ñu ànd ak suñu service de communication ma leen di yëgal ne man ngeen rapproché wu de nous benn salle de presse danañ ko mettre en place comme sa bés bu jot rek ngeen mën a am information bu baax à la source loolu lañ ne woon danañ leen ko yëgal ñu ngi leen di remercier bu baax salaamaaleykum wa